jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dalee nag jàmm ci xibaaru marax yi li ci gën a fës te ñu nam ko jukki dina bokk ci point bi ñu leen di defal saa su nekk jëriñ ji nga xam ne moom lañu dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal jàpp leen ne ni ki tey ji lu tolloo ko fukk ak benn ci ay doomi aadama ñoom ñoo am jàngoro ji di coronavirus ginnaaw téeméer ak fukki test yi nga xam ne def nañ ko juróom-ñeent ci ñoom nag di cas contact ñaar di transmission communautaire jàpp itam tolloo ko fukk ñett daal nañuy wér ci euh, bile jàngoro garab gi di chloroquine te ñu jàpp ne lay saafara la ci bile jàngoro di euh, rek di faj ki nga xam ne nag moom moo di directeur bu pharmacie ak itam médicament di xupp ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi koy jëfandikoo euh, ci anam bu jaarul yoon ku nekk itam xam na ne bile jàngoro am na ay njeexital yoo xamante ni daal na koy def fii ci mim réew ba tax ñi nga xam ne nag ñoom ñooy bay soble bi di artu rek nguur gi mu dikk ak ñoom ci ay ndimbal daañu dem cop Podor déglu ki nga xam ne rek moom moo di Babacar sàll di njiit la Hissène Habré jamono yi daal nañ koy bàyyi mu to noyyi ngelaw lu féex ci lu tollook juróom benn fukki fan nag ci këram suñu ay ndaw doxantu nañ ci uh, makaanam bi nga xam ne moom moo nekk fii ci Almadi ak itam ca Wakam kenn koo xamante ni day layool ñi nga xam ne moom moo di victime yi di maître Assane Diomba Ndiaye li mu xamle moom moo di nguur bu Sénégal amul dogal wala bokk sañ-sañ daal di bàyyi féex euh, ci giiru giirug dundam ku nekk xam na ne Hissène Habré dañ ko daal di rek tëj ci giirug dundam mbokk yi lii lee di ponk yi bu ngeen taaxirloo tuuti ma dikk ñu faram-fàccee asalaamaaleykum mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu doore xibaar yi nañu ko junjee woon euh, ci bopp ba jàngoro ji di coronavirus euh, ni ki tey ji nag euh, li nga xam ne jot nañ ko fësal jàpp leen ne lu tolloo ko fukk ak benn ci ay doom yi aadama ñoom ñoo ko am ni ki tey ji ginnaaw test yi ngi ñuy def nag mu toll ci téeméer ak ci téeméer ak fukk ci ay test yoo xamante ni def nañ ko juróom-ñeent ci ñoom nag di ay k contact ñaar di ay cas communautaire fukk ak ñett ci ñoom itam dal di nañuy wër nag dañuy teelu ki nga xam ne moom moo di Abdoulaye Diouf Sarr moom mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu wér yaram fii ci réew bu Sénégal si téeméeri test fukk yi ñu def tey fukk ak benn ñoo si positif bon dëkk ñoom ñoo am jàngoro ji juróom-ñeent yi ay cas contact la ñu doon suivre ñaar ñoo nekk transmission communautaire mooy ñu ko am te xamuñu fu ñu ko jëlee ñu leen di yëgale fukk ak ñett ñoo xamante ne ñu ngi leen doon hospitalisé mën nañ wax ne tey wér nañ danañ leen génnee ci bés bi ministère de la santé et l'action sociale mu ngi leen di yëgal ne ñi nekk hôpital ñu ngi yëg tan cas communautaire yi mi ngi bëgg a bëri mi ngi bëgg a jégg dayo bon dëgg région bu nekk gouverneur bi mooy diriger comité régional bi xamante ne moom moo yor xeex bi beneen bi comité boobu jàpp mooy si wàllu transfert u dépôt yi mooy ñi xamante ne dañoo faatu bitim réew ñu war mën a indi denc leen si seen réew ñu ne jàngoro ji fi mu tollu léegi ak wàll bi ni mu gaawe te koor yooyu bu ñu ñëwee ni leen di xamuñ ndax dana mucc ayib am ndeet comité bi ñaan ñu dakkal bépp transfert parce que fii ñu toll ci xeex bi waruñu jël benn risque boo xamante ne dana indil ñi xamante ne ñooy xeex yeneen problème yoo xamante ne day dégg dayo doonoon Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram dañuy des ci woowule mbas ba tey chloroquine xam ngeen de moom moo di garab bi ñu jàpp ne rek saafara la ci bile tawat ni ki tey ji nag ñenn ci ñoo xamante ni ñu ngi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram ñoom ñoo doon artu ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan wi ci anam wa nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo li nga xam ne rek moom moo di chloroquine boobee ba tax directeur bu pharmacie ak itam médicament nag daje ak tey jii ci ab ndaje boo xamante ni ñu ngi doon waxtaanee wàllu woowee Fatou Kiné Deme ak Amadou Ba teewoon nañ ko. chloroquine ku ne xam ko ci garab gi bokk ci ñiy jëfandikoo ngir taxawu ñi amee jàngoroy mbas mi di Covid 19. résultat yi nag ñu gis ni baax na naam waaye jot na ñu yoonal ko su ko defee ñeneen ñi amee yeneen jàngoro yi te di ko fajoo tamit mën caa jote naka noon nit ñu mën a moytandiku njeexital yi nga xamante ne baaxul ci doomu aadama. nañ jël su si ndigalu ministre bi pour wax pharmaciens yi ak grossistes yi nañu maanaam nañu nañu diligente xam nañu koy wax te nañu contingenté euh, ku commandé 100 ñu ne mënoo am 100 ñett nga mën a parce que am na ñeneen ñu ko soxla pharmaciens yi tamit su ñuy jaay sur ordonnance ñu bañ joxe ay juróomi boîte ak ñu koy maanaam ñu koy répartir ba kenn ku ne. mun a jot ci traitement bu mu soxla. directrice de la santé nag di soññ askan wi ah, ci garab yu bon yi nga xamante ne nii mi ci marché bi rawatina ci jamono ji ñu toll temb. tey jii nag nit ñi war nañoo gën a comprendre tax ñu ne bu leen jënd garab ci mbedd mi bu leen jënd garab boo xam ne jëndewu leen ko pharmacie wala ci structure de santé yi nga xam ne autorisé nañ ko mooy post de santé mooy centre de santé foofu sax gis nga ne tey suñ politique dafa dem ba ne bu nekk nañ fi def pharmacien parce que pharmacien moo jàng garab gi. ba nga xamante même su nekkee ci benn centre de santé mbooleem poste de santé yi ko wër moom dafa war dem di leen xool. leneen lu ñuy ñaawlu mooy ñi nga xamante ne nag ñooy jug di dem di fajali seen bopp te xamuñu sax garab yooyu ndax yu ñu war a jël la am déet. chloroquine bi nag dañ ko amoon ci paludisme jékki-jékki ñu ne fajatuñu en tout fii euh, sunu tropique ngeen nañ ko retiré retiré ko teg ko mais terewul ñu ngi amoon autorisation de mise sur le marché mais pour yeneen feebar. gis nga sax ñooñu tey ñoo ñëw ci presse bi ci yéen naan ñu gisatuñu garab gi loolu ñu ci am lu ñu naqari parce que loolu mooy wane ne population yi dañoo dégg tël rek daal dem nañ ko arrêté automédication baaxul ci dara rawatina ci chloroquine bi nga xam ne dina jàpp bët dina jàpp xëtt dina jàpp lépp loo xamante ne mun na koo yàq. lu ëpp juróom ñaari téeméer ci dose ñeel nag kon traitement bi ñu ne teg nañ ko ba noppi ci réew mi chloroquine bi nga xamante ni nag bu njëkkoon dañ ko daan jëfandikoo ngir faj jàngoroy sibiru ñoom ñii di yëngu ci wàllu wér gi yaram ña ngay leerlu nekkat mbas mi bu ñu ca noppee chloroquine bi nañu ko jëlee woon ci marché bi noone la ñu koy defaatee Fatou ne dem chloroquine boobee nag mbokk yi dégg ngeen ci ki nga xam ne moom moo di professeur Didier rawul ci xam-xamam ak itam recherche yi nga xam ne def nañ ko ci wàllu garab woowee nag dikkat na ci rek anal moo tax bile mbas li mu waroon def limu doomi aadama ya muy rey ca tugal nag def ko fii ci réew bu Sénégal rawatina tundu Afrique dañuy teewlu ay kàddoom ci site ba nga xam ne moom moo ko jiitee la ñu ko jëlee ñu seetaan. message bi may baaxee sama mbokk africain yi te mu soxal jàngoro ji di coronavirus mooy ni mu sonalee yeneen continent yi sonalewu ko Afrique bi nekk ci suuf tropicale. askan wa daal ñoom leen gën a protégé waaye nag mënuñoo xam ba kañ. li wér te mooy gëstu yi nga xamante ni def nañ ko te mu soxal yeneen xeetu coronavirus yi te ñu defoon ko ca Sénégal daal mooy jéem nañoo xool wala ñu xam lu ko war. maanaam xeetu protection boobu. benn firnde gi bokk na ci écosystème bi mooy dëkkuwaay yi te boobee écosystème maanaam nekkinu askan woowu mooy rek jàng euh, mooy rek garab yi nga xamante dañ koy jël ngir xeex si buru ñu koy wax euh, ay médicaments antipaludiques ci médicament yooyu nag bokk na ci chloroquine garab la bu efficace ngir xeex jàngoro jii di coronavirus. looloo tax kon ni virus bi mel ci yeneen continent yu demee ni ki Europe melu ko ci Afrique ndax ñoom Afrique dinañ jël wala yàgg nañu jël xeetu garab moo tax fii ci suñu institut ñun tàmbali noo traité loolu jagleel ko ñi am corona jox leen garab yu demee ni ki hydroxychloroquine ak azithromycine ban ko defee nag am na ñu ci doon yàq suñu del naan wóorut résultat bi ngi nii te africains yi sax buñ déggee ay nit ñu ŋàññi ci loolu dana reetaan ndax ñun ñii rawatina man mi ba may gone ca Sénégal daan ñu jox chloroquine ngir xeex jàngoro ji di sibbiru kon ay caaxaan la kuy ŋàññ xeetu garab gi. On a tous bouffé la chloroquine euh, euh, quand on était gosse et que ça a continué pendant très longtemps. Tout ça n'est pas très sérieux et donc n'est pas vraiment documenté. mu nekkoon euh, DJ Raoul garab yooyee nag euh, nga xam ne day faj euh, mbas bi di coronavirus wala bokk Covid 19 ca diwaan bu Touba mu mel ni nee na fa xuus joxe nañ fa ba mu doy ngir rek feebar bile doon loo xamante ni dañ koy fàttaliku fii ci réew bu Sénégal ki xam ne li ni mel nag di directeur bu pharmacie régionale ba di ki nga xam ne moom moo di Mamadane Lo Mohamed Jo Diop moom moo teewlu ay kàddoom. situation bu bees bi bi mu amee Euh, coronavirus bi ak maladie bi ñu tuddee Covid 19 bi mu amee itam ñu ñu ñu ñu am ci taxawaay boo xam ne si dina tax fonctionnement normal boobu ñoo doon assurer continuer continuer et que nag situation bu bees bi aussi ñu am ay réponses yuñ ci indi yoo xam ne si dana tax nit ñi di jot ci garab yi ci ci ci ci ni mu waree. ba situation bi commencé. ñu xool maladie bi ak spécialité yi koy gérer ñu xool liste médicaments yi nga xam ne si yëpp danañ ko soxla pour mën a jël en charge correctement les patients qui sont déclarés ensuite mën a permettre population bi ak personnel soignant bi ñu protéger wu notamment ak ay masques ak gel hydroalcoolique bi ci noonu la ñu définir liste boobu te li ci bees mooy liste bi dañ koy suivre quotidiennement c'est-à-dire quotidiennement on fait des inventaires bu fekkente ne am na ay gap yu ñu war a combler ñu ñu ñu ñu combler gap yi très rapidement dans les vingt quatre heures. fi mu ne fi mu ne nii daal bi ñu xaymaa li nga xam ne si am nañ ko ci stock mën nañoo toog un mois boo xam ne si mën nañoo fonctionner stock de sécurité de un mois en tout cas bu ñu basé woo ci niñ ci liñ daan fonctionner. jàngoro ji di coronavirus nag xeex bi doon lépp ñëpp ba tax nag ay ndaw yoo xamante ni ay doomu réew bu ah, Sénégal lañ nekk ca école bi nga xam ne moom lañ dippe ESP di école supérieure polytechnique bu Ndakaaru ñoom ñi itam daal di indi seen wàll rek ngir jàngoro ji mën ñoo abal fii ci mim réew suñu ay ndaw Alxasan Ba dem nañ fekki leen suñu seen laboratoire ba nga xam ne daal nañ koy am sa seen ab école ñu teelu reportage bi bala nga dugg ci labo bi faw ñu test la xool sa température fu mu toll ak lii di thermoflash dal leen jàmm ci makkaanu élèves yi ingénieurs yi nga xam ne nag seen xam-xam dafa màcc ci wàllum électrique mécanique ku nekk ci ñoom am na liñ la dénk équipe technique bi juróom lañu. moom mu njëkkee ci Abdoulaye Touré ensuite Chérif Guène Amath Diouf ak Mohamed Gueye. ñoom la ñu dénk lu jëm ci wàllu taxawal prototype yi prototype yi nga xam ne dafay tax nga mën a désinfecter say loxo te doolaal fenn. da ngay ñëw rek. ne ci kanam ah, teg say loxo mbir mi jox la jox la gel bi nga doo bës dara doo laal dara ndax comme ni ñu ko xamee ci contexte fièvre bi comme ni ñu ko xamee ah, dañuy éviter lépp luy laal lépp luy jegante ay nit am na benn partie mécanique mooy kii defar kii bi ngeen gis nii am si dina am partie électrique am tamit partie tuyauterie tuyauterie mooy maanaam mooy nu ñu def nu ñu def ba ci bi jaar ba génn. gel bi itam ci boppam ay chimiste yu nekk ci école bi ñoo koy defar ci xayma mën nañ defar fukki prototype par bis ñoom élèves ingénieurs yi ñu jàpp ne itam lu ni mel dafay tax ñu bokk ci xeex bi ñu sumb jëm ci wàllum coronavirus. buñ ko defaree bëgguñ mu toog ci labo bi dañoo bëgg sénégalais yi mën ko utiliser moom moo tax fexe nañ am suñuy ak contact yi am. ñu dem ci pharmacie nationale d'approvisionnement ñoom ñu jox ñu seen suggestion affaire yooyu yëpp yoo xam ne tënd nañ ci compte. bàyyi nañ xel itam bu baax ci digle yi nga xam ne kilifa yi joxe nañ ko ci wàllu moytandiku. suñu transport rek dañoo éviter transport en commun yi di jël ay taxi pour bañ a jaxasoo nit ñi te bu ñu ñëwee fii tamit gis ngeen ni am nañ am na suñu mbokk fii bu fi yor li gars yi di wax thermoflash yéen sax jot nañ leen testé balaa ngeen di dugg pour xool. ay pharmacie jot nañ fa yóbbu seen i prototype yi ngir ñu tester leen. mu nekk li nga xam ne dafay wone seen xarañteef ñoom élèves ingénieurs yu nekk ci école supérieure polytechnique fii ci ndakaaru ñu ngi xaarandi nag jëwriñ ci wàllum wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr dalal leen ba ñu mën ko woon liñ jot a defar Alhassane Ba ku nekk xam na ne nag bile feebar bam ñu gën a see ak léegi nag yenn ci ay barab daal dañ koy tëj wala bokk ñu jël ay dogal fu ci mel ni Kër Massar rawatina fa nga xam ne moom moo di rond-point bi ki nga xam ne moom moo di sous-préfet bi nag daal dinay jël ab dogal bëggatu fa gis ay ndaje ñenn nag ñoo xamante ni mu mel ni dëppoowuñu ak la nga xam ne moom la yoon tëral nag mu mel ni daal dañ leen di teg loxo ñu fàttali leen rek foofee nga xam ne moom moo ca Kër Massar Sarr am nañ fa lu tollook juróomi cas yoo xamante ni wax nañ ko ñaar ci ñoom nag di ay transmission communautaire ak li nga xam ne moom moo di euh, ñaar fukk ak juróom benn cas yoo xamante ni euh, def nañ fa ab constat ki xamle boobule xibaar bi suñu ndaw la nga xam ne euh, moom moo ñu toogal ca banlieue bu ndakaaru di Salif Sow dañuy wax ci leneen mbokk yi bile feebar am ay njeexital yu bari ci yenn ci ay secteurs yoo xamante ni def na ko fii ci mim réew mu mel ni ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, bay soble bi bàyyeekoo fii ci réew bu Sénégal nag jamono yi am nañ ay jafe-jafe ngir rek jaay lu ni mel ba tax rek ñuy sàkku ci nguur gi ak ñoom ci ay ndimbal ci jamono yi nga xam ne aay nañ dem beeg dikk bi fii ci réew bu euh, Sénégal dañuy teewlu kuréel li nga xam ne Boubacar sàll moom moo ko jiite. ñu xeex si coronavirus bi mooy jafe-jafe bi lëmbi àddina moo ñu dal ñun ñu nekk si mbayam soble aussi mais noo ngi sant président de la république di ko gërëm si mesures yu mu jël ak ministre bu santé ak seeni taxawaay ñun ñi nga xam ne aussi du nekk si wàllu mbay mi tey eggal nañu li ñu doon béy ñoo ngi si commercialisation bi mesures yi jël nañ si boolee ñëw jëndaale si soble bi jox ko yeneen Sénégalais parce que ngénte amatul ceyite amatul benn organisation amatul. récolte bi si pic bi kon li ñuy ñaan euh, ministre Mansour Faye bi nga yokk xam ni moo yore lépp lu jëm si wàllu ndimbal ak ñoom seen ndimbal bi muy def si Sénégalais yi te président de si loxom noo ngi koy ñaan ni muy jëndee denrée wu ceeb bi na ñëw mu jëndee ko soble bi dafa bare ba ëpp bare mën naa la wax ni. def nañu la ëpp 4500 tonnes 4500 hectares def nañ ko. cinq 4500 hectares def nañ ko te tey fi may wax ak yow nii 40 pour cent si production bi rek moo génnagum kon xam nga ni li nekk fii bu fekkee kenn dellusiwu ko béykat daañu am ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon bu Boubacar Sall dañuy wax ci leneen mbokk yi jàngoro ji di coronavirus daal nay tax ñu bàyyi ki nga xam ne moom moo di Hissène Habré mu dol mu noyyi ngelaw lu féex mu moomee xam ngeen ne dañ ko tëjoon ci lu toll ci guuruk dundam jamono yi daal nañ koy bàyyi mu dellu ci makkaanam lu tollook juróom-benn fukki fan suñu ay ndaw Pafara Ngingue Amadou Ba doxantu woon nañ ca makkaan ba ngir gis ñi nga xam ne ñoom ñoo di dëkkandoo yi. naka la ñuy dundee lu ni mel. ñu tëj ko giiru dundam ki fi nekkoon njiitu réew bu Tchad Hissène Habré jamono ji nag doon ko bàyyi mu dem këram waaye foofu nag daa mel ne kaso la li ko waral di feebar bii di korona coronavirus ñu doxantu ci këram ba nekk ca wakkam ak ca Almadi foofu amul lenn lu fay yëngu gisuñu sax benn takk der ca bunt ba xibaar bu ñu mel neex ñenn ci ay dëkkandoom. Wakaam ci boppam dañ ciy sant yàlla ciy sant yàlla ndax euh, Hissène Habré doomu càdd la waaye ñun jàpp nañ ne sax doomu wakaam la wakaam daf ko doomoo ndax dëkk na fi ay ati ati ati at soo xoolee euh, avant ñu koy arrêté am na sax ay combat yu ñu si doon def lii dëgg bi ko gars yi ba pare dañuy taxawaat nag di ñaan doon ñaan yàlla defal ñu xéwal gi mu jaar ci mbir mi corona day am na lu mu yàqoon waaye ci boobu am lu mu defar waaye itam na fi bañ a toog di fi defar nan ko génne rek mu dem. ñu jàpp ne bu dee yoon mënu koo teggi loxo ñi nga xam ne ñooy jàppale Hissène abra nee na yoon dakaa war a bàyyi mu yeggale penam ci biir këram. comme kenn gisu ko nag te yàlla def na xéewal ba ëgg na nu ngi sant yàlla di ko gërëm di ko ñaan yàlla dolli jàmm gi te président de la république dugal ci loxoom. ba ñu bàyyi ko ci këram boog mu toog ak njabootam ba àdduna tukki. li ci regrettable rek mooy que mag la léegi te te it bon su fekkent ne loolu mën na continuer ñu bàyyi foofu këram di ko surveiller foofu mu bañ a dellu parce que it mag la mag la buñ ko fa téyee ba leneen dikk ci mu def foofu penam mag la donc nañ ko bàyyi foofu en résidence surveillée su fekkente ne bàyyi ko totalement mënul ne ñu bàyyi en résidence surveillée. ñu def ko résidence surveillée ci diirub ñaari weer li ko waral di coronavirus ña dëkkeek seen Habré nee nañ benn coppeeku amul ci li nga xam ne noonu la ñuy dundee ci biir quartier bi. Pape Fara ñing ñooñee nga jox euh, micro bi nag ñu àddu la ñu sàkku keneen koo xamante ni euh, bañ na ba tëdd ci suuf nag ne na abre nguur bu Sénégal amul sañ-sañu bàyyi ko mu daal di euh, noyyi ngelaw lu féex ki xam lu ni mel nag di maître Assane Dioma Ndiaye ni ki tey ji nag la doon jàkkaarloog suñu ndaw ki ne dem ak Amadou Ba mbétteel bu mag la woon surtout nag ay information yi njëkkoon a jot di xamal ne Hissène Habré président de la république gracié na ko parce que am na ñu gracié woon fan yee ñu yaakaar ne bu génnee rek ci kaw grace boobu ci la war a nekk mais euh, euh, ministre de la justice génn na immédiatement pour wane ne euh, du grace en réalité autorisation bu ko juge d'application des peines may la mu dellu ci njabootam parce que dañu jàpp ne jamono jëm nekk ak feebar bi ñu bi am fan yi euh, bu nekkee prison ak at yi mu am xëy na mun na am ay risques. Sénégal dafa signer accord de siège avec l'Union africaine te chambre africain yi statut moo ko tëral te statut boobu dafa ne waxoon ne bu ñu condamné Hissène-Habré mun na purger penam Sénégal mais mun na ko purger ci dëkku Afrique bu ko neex mais euh, dëkk bu ko mun a abriter. maanaam pour mu jël euh, purger penam dëkk boobu du am sañ-sañ pour mu laal li nga xam ne moom lañ àtte donc loolu nag comme Sénégal rappelé na ko tey ëllëg suba lu Sénégal def itam day engagé responsabilité mun nañ ko yóbbu ci juridiction internationale yi CEDEAO wala comité des nations unies contre la torture mu nekkoon euh, maître Assane Diomba Ndiaye beneen ab avocat daal nay euh, addu ci mbir mu ni mel euh, du Reed Brody moom mooy mooy nga xam ne moom mooy layool ñenn ci ñoo xamante nii amoon nañu ko lor ci jëf ji nga xam ne Hissène Habré doon na ko jëf foofee ci réew bu Tchad li mu xamle moom moo di dañoo rek daal di salfaañe li nga xam ne moom moo di statut bu chambre bu africain extraordinaire dañuy teewlu ay kàddoom. pouvons lu ñu mën a def rek mooy gëm gouvernement bu Sénégal ci kàddu ci li ñu wax ne euh, permission de sortie bi ñu jox moom Hissène Habré bañ gëm ni rek ni euh, ab prétexte la rek ngir jaare fa euh, jox ko li nga xamante ni ab libération la boo xam ne am na lu ñu ciy nëbb dañu jàpp ni comme li ñu wax rek que ni ngir aar ko ci lu jëm ci wàllum coronavirus moo tax ñu def ko comme yeneen prisonnier itam. dëgg la bëgguñu kenn jote ci feebar boobu bokk na ci itam président Hissène Habré ab libération anticipée nag dafay jalgati li nga xamante ni moo tënk chambre africaine extraordinaire wante itam bu ñuy fàttaliku mi nga xam ne dafay prévoir que ni Sénégal dafa war a appliquer peine perpétuité maanaam ngiru dundam ñu daan ko kii di Hissène Habré comité contre torture bi nga xamante ni nag moo nekk ci Nations Unies daal dinañ fàttali sax ci weeru décembre que ni Sénégal euh, mënta libéré kii di Hissène abré donc dañu bëgg rek suñu xel dal ci wàllu woowu que ni nekkul ab libération boo xam ne euh, am na lu ciy laxasu ci beneen wàllu itam ñu fàttali que ni Hissène Habré ba léegi nag jotul indemniser ñi nga xam ne ñooy ay victime Euh, kooku jàpp ne dañoo rek euh, salfaañe li nga xam ne moom moo di statut yu chambre africaine euh, extraordinaire keneen koo xamante ne ni ak léegi mu ngi rek artu waaye itam di ñaan ci kanam yoon ñu bàyyi Hissène Habré mu daal di noyyi lu féex di ki nga xam ne rek moom moo koy layool li mu xamle bokk na ci rek jàngaro ji di coronavirus na xam ne moom moo ni xuus fii ci réew bu Sénégal warul ñu bàyyi kookee ci li nga xam ne moom moo di kaso bi ay kàddoom suñu ndaw la ko dénk mu di Salif Sow. Hissène Habré dem na fekk ji waa këram waaye lu tubaab di wax résidence surveillée maanaam kër ga dañ koy garde loolu la am juge bi moom moo ko wax mu dem këram may na ko ñaari weer ngir mu saafanteeg njabootam altine gi weesu la juge bi jël dogal bi ndaxte nee na Covid 19 di coronavirus daa dugg ci ci Sénégal te ki nga xamante ni mooy Hissène Habré ay atam dañoo takku Hissène Habré am na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett waaye wér-gu-yaramam tamit taxu koo demee noonu ndax su ngeen fàttalikoo soxnaam bari na ay yoon yu mu wax ak journaliste yi fii ne borom këram dafa tawat Fatou Raymond Habré diggu weeru novembre bee weesu rek mu ngi doon wax ak média yi naan leen jëkkër ja loxo bi dafa damm ca kaso ba ñu ko tëj jamono jooja nag ñi nga xamante ni ñooy garde pénitentiaire yi ñoom weddi woon nañu li ñu moom ñu ngi ko tëj ci atum 2017 euh, 9 janvier ginnaaw ba mu defee li tubaab di wax euh, appel ndakaaru gi la yat bi dalee woon ci kawam juge malien bi du Ogadey Wafi moom moo waxoon ne Hissène Habré dafa def li ñuy wax crime contre l'humanité jàpp ay doomu aadama def leen loo xamante ni ëpp na nettali ci nopp ba taxoon sax chambre d'appel bi jamono jooju ne Hissène Habré daa war a dàmp ñi nga xamante ni tooñ na leen ci lu tolloog juróom fukk ak ñaari milliards yu teg ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukki million ci sunu xaalis Hissène Habré juróom-ñetti at la def ci boppu réewu Tchad Hissène Habré ñu ngi ko njëkkoon daaneel Euh, atum 2016 30 mai la woon moo taxoon ba mu def lu ñuy wax appel waaye ñi nga xamante ni ñoo yóbbuwoon Hissène Habré ci yoon ja lim toll ci juróom-ñaari junni ñoom dañoo mës a jàpp ne Hissène Habré gars yi dañ koy utal yoon ngir mu mën a génn ci kaso bi ndax soxnaam génn yu muy génn nu mu bëree ci média bi Hissène Habré mu ngi génn Tchad atum 1990 nguuram moo daano woon moom Hissène Habré jamono jii mu ngi ndakaaru boobu ba léegi sax fii la nekk am na juróom-ñaar fukki at ak juróom-ñett moom soxnaam ay doomam ñoom ñëpp yeewoo quartier bi ñuy wax Wakaam nekkee ci ndakaaru ci capitale bu Sénégal avocat Hissène Habré bañ jokkook moom di maître Ibrahima Diawara nee na amul lenn loo xamante ni mën na koo wax jamono ji ci clientam bi nga xamante ni bàyyi nañ ko mu dem fekki euh, waa këram clientam bi nga xamante ni ñu fàttali leen ne ku jege woon la tamit këru diine yi nekkee Sénégal jërëjëf euh, saalif Sow ñu sant ak ngërëm ñeel na la ci tënk woowee nga xam ne def nga ko mbokk yéen itam naka noonu fi la ñuy jaar daal di buur yi la jotaayu xibaar ñu bàyyi leen ngeen wéyi ak suñu ay programme bi di leen jox dig daje ci kanam tuuti Chérif Diop noppi na ngir faram-fàccee xibaar yi ci kàllaamay euh, tubaab lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéyi tey ñaan rek borom bi mbas mi nga xam ne daal na koy indi ci xarnu bi mu rek daal dañu ciy musal ba ku ci nekk ci ñun mën a wéyal li nga xam ne moom moo di suñu ay activité jërë ngeen jëf